daf daan wax soxna asukan ni ko mhm. xale yi jigéen ñi doomi mhm. ñi nga xam ni ñoom lañu am ay xarit mhm. bu ñu dikkee fayal ma leen nuyoo ndax léeg-léeg ñu ànd ak seeni xarit te man kër Babacar bëggumaa joxante ñoom loxo bi mu nekkee insan taqiyan warian zahidan mu nekk nag jë maanaam jëmmi jaamu yàlla joo xamante ni dafa dem ba poñe adduna ndax adduna mënoo koo dëddu te poñewuloo ko yaa ngi ki amul dara mënul wax damay dëddu adduna. déedéet. <laughs> il faut adduna dëkkmal la. il faut adduna dëkkmal la. nga dëddu ko. nga yilif jamono. wëlbatiku nag téye adduna ba mu defee ni da nga koy téye nga ne ko yàlla. la ilaha illallah Habib. Cheikh Seydi Aboubacar. radiyallahu anhu moo donn Seydi Alxaaji Malik radiyallahu taala yamu ci donn Seydi Alxaaji Malik de moo donn Cheikh Sidi Ahmed Tidiane waxuma la mu donn Cheikh Sidi Ahmed Tidiane de waaye moo donn rasulillahi sallallahu alayhi ku leen donn ndax teewoo adduna ah kañ waaye ak loolu lépp xam nga lu daan wax donn gi ma donn alaaji malik taxul sama rakk yi may seen sëriñ de a ab naa a cheikhul xaaji malik ashyaaqi zukuran wa inaasan loolu mooy lan doomi seydul xaaji malik yi ak jigéen ñëpp ñooy sama sëriñ allahu ndax seen bay seydul xaaji malik oh. mhm. ci xam-xam bu sell bi mu am bi baayam cheikh alhaaji malik waxee ci réew mi wa innahu iz arada allahu nachatana mm. réew mi yëngatu mm-hmm. comme ni muy yëngatoo rek mm-hmm. li mu wax mënul nekk mm-hmm. ndax bu ko waxee naka la yàlla mën a jël ci lenn ci leeram yi di ci bind yonent bi kon leeru yàlla wàññeeku comme moom sëriñ Babacar kan bu soxna Umu Kalsum nee na ma hmm. musul xëy lu dul lenn rek moo yitteem hmm. mooy défendre Seydi Hadji Malick ba kenn du ko yeb radiyallahu taala hmm. may mu dégg Cheikh Al Hadji wax lool mu ne nuuru habibillahi safwatihi min nuuri rabbin bila raybin wala tuhami billahi ñoom xam na ni yonent bi leeru yàlla la ndax xam nga lu tax mu nga xam ni yonanti bi leeru yàlla la sallallahu alayhi wa sallam waxu ko benn yoon hmm. ay yoon la ko wax hmm. yàlla neen hmm. yuriduuna yutfiu nuur allahi ñoom yéeféeri màkka day liñ bëgg mooy fexe ba fay sama leer gi man yàlla mooy Seyduna Muhammad sallallahu oh. alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxaat ni qad jaakum min allahi nuurun la ilaha illa allah wa kitaabun mubin qad jaakum dikkal na leen nuurun muhammad sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu sëñ Babacar kon ni nuuru habibillahi Mm-hmm. leeri xam nga sëñ Babacar. radiyallahu taala Haji Pape Cheikh. xam nga lu tax mu woo yu tudde waaw min nuuri rabbi bilaa shakkin wala tuhami def xam nga lu tax mu ne Habibillahi Sayyiduna Umar ibnu Xattaab radiyallahu taala dafa génn toog saxaaba yi toog mhm. mu ne man day dégg naa yàlla ci alquran mu ne ittaxadallahu ibrahima xalila mhm. yàlla nee na ibrahima xaritam la mhm. ma déggaat ci alquran yàlla waxaat ni Moussa kalimullahi ndax Moussa dégg na baatu yàlla yaa Moussa inni ana allahu wax ju la am na nopp yoom bu ñu koy dégg di bënn Moussa man la yàlla. Allahu akbar mu ne Aysa mooy baatu yàlla. mu amar laaj ni waa kii nga xam ne moonu gënal suñ ndey yi. Hmm. gënal ñu suñ baay yi. Hmm. ba buñ ko tuddee ñu taqali ko ak suñ sago yi. Hmm. kii ci biir moom lan la ci yàlla. sallallahu alayhi wa sallam rek yonent yàlla Muhammad génn. sallallahu teg loxoom ci kaw Omar. ne ko am na koo fàttee laaj. Hmm. Omar ni ko kan mu ne ko xanaa aadama min bawoo ñun ñëpp alayhi mu ne ko xanaa xamoo ni aadama min bawoo ñun ñëpp ak lim jur yëpp ana sayyidu waladi aadama oh sallallahu alayhi wa sallam aadama lu mën a jur maay seen sang te hmm. wala faxara pour que ko mm-hmm. mu ne ko Ibrahima daraja yi nga rang yëpp budul woon man yàlla lakk ko ca safara sa te wala faxara ne ko da ngay laaj man may kan ci gaay yi mu ne ko am ah, mu ne ko ana habibu rabbul alamin oh yàlla mi bind ñëpp man maay soppeem allahu habibu muhammad soppe moo soppe moo gën a for xarit de foofu xam nga sa xarit mën nga ko ba waaye sa soppee mun mënu ko ba soppe lu mu def neex na ndax sa xarit mën nga xaritoon moom ci instant bu gàtt mu jeex waaye sa soppee da koy sopp ba muy sax ci sa ba boo ko gisul da nga ko jeneer allahu akbar sëñ Babacar li min maanaam nuuru xabibillaahi ki nga xam ne du xaritu yàlla soppi yàlla la moo tax Seydina Ali karamallahu fekk yonent bi mu toog sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko moom Moustapha loo bokkat yàlla mu ne ko Ali lu tax nga laaj ma lii oh, mu ne ko damaa gis lim la defal defalu ko kenn mu ne ko xanaa cofeel allahu akbar maam maam xalifa tontul baayam ni min nuuri rabbin bi laa raybin wala tuhami oh. amul sikk ni yàlla ca leeram nga mm-hmm. bul xam nag ca leeram ga ndax leer ga kenn mënu ko idraak déedéet mm-hmm. leeru yàlla kenn mënu ko pekk mm-hmm. waaye leeram ga ci la jël bind ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ma koy bind nag ban baat la jëfandikoo mm-hmm. mooy kun habibi muhammadan sallallahu alayhi wa sallam nekkal yow sama sot mm-hmm. allahu akbar mbay dafa bari xam-xam ba bu dikkaan xam-xam bu dikkaan ci moom mm-hmm. su koy tontu su koy tontu bu ci am sikk moom sëriñ Babacar déedéet radiyallahu taala noonu la xam-xam yóbbu woon na ko ci instant bu ne la daan way suñu maam alxaaji mbay jóob wakkaam alxaaji mbay jóob wakkaam daf ko séen muy ñëw rek di ko ziyaar si rek mhm. sëñ baabakar defaraat toogay baat ne daal di koy xool ni attaan naa alxaaji mbay jóob wakkaam yi mm. <laughs> eh. Eh. sama soppe ba alxaaji mbay jóob ma nga ne di ñëw alxaaji mbay jóob ñëw di ko dee mm. mhm. di ko wax ni waa Wakaam dañu laa bëgg a ziyaar si bëggoon nga jàppal leen bis ñu xam ko pour mën laa ziyaar si déglu lim wax hmm. mu ni waqul li zairina ñu ñëw talaata dégg nga lii la ilaha illallah ca tisbaaran ida addu salaata waqul lahuma ñu boole ca hmm. li ma fi xadisil badri tey gaay tee mu kaata la ilaha illallah صلاة تسبارا إذا أدوا صلاة زائرين نيو ثلاثة تسبارا إذا أدوا خلفنا فقل لهم مبالجتي لما في حديث البدر tey gay teeñu kaata lizairina waa gadis baran iza addu salata moom Cheikh Seydi Aboubacar mu ne ko waxal waa Wakaam ni leen ñu ñëw tal talaata mhm. ginnaaw tisbaar waaw wax leen nag waqul lahumaa ñu boole ca tey xam nga lu tax mu ne ñu boole ca tey mooy xadara bi ñuy ñëw baram xadara bi deewul ah, ah mbay am na ñoo xam bu ñu leen tàggee ni dee nañ ñi ngi def erreur de hmm. hmm. pap hmm. yàlla lan la wax kullu nafsin yàlla waxul kullu ruuxin allahu akbar kullu nafsin la wax la ilaha illallah an nafs wax nga borom xikam dafa wax ni. li nga wax gan la de mbay. gan la moos la borom téere ba dafa wax ni bu ñu nee nafsu mooy yàpp wi ak deret ji la ñuy gas suul. Mhm. waaye ruux yi wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa hmm. te maam Cheikh Al Hadj Malick ca la bokk. radiyallahu taala anhu moo tax mu ne ñu boole ca tey. xam nga lu tax Pape. moo tax Thierno Mansour Baro. waxoon waxam bu rëy ja bu daan ziar si ne Maodo daa génn. dafa ñëw ci waawan Badr ñëw ba ci jàkka ji ne bu kenn dugg. ñëpp toog nee na booba Cheikh Al Hadj dafa génn. Eh, dafa génn. waaw néewul ca rawdu ba. déedéet mu ne tekk ba ci yàgg mu ne Thierno Ari. lan. Cheikh Al Hadj Mal yegsi na. ma wax la leneen da koo dem di ko ziyaare ji fii ci Tiwaawan ci raw bi laa ilaaha illallaah fañu ko denc mu ni Maodo dafa génn néew fii waaw ma wax la leneen toog biir mel ma Cerno Ari Cerno Ari góor gi Abdou Karim Ndiaye nee na na ma laa bu daan dem deux heures du matin moom Cheikh Seydi Aboubacar di ziyaar Seydi Hadji Malick radiyallaahu taala nee na bu nu ñëwee ba ci buntu jàkka ji da koy laaj torse bi moom sëñ Babacar waaw simmi dàll yi ni ko xaar ma ma ñëw góor gi Abdou Karim moo daan wat sëñ Babacar. radiyallahu taala anhu góor gi Abdou Karim moo ma wax ci làmmiñam ni ma doom. Hmm. su ma sànn dugg ba ci biir zawiya bi ba toog. Hmm. ci Cheikh Al Hadj Malick. su ko dee ziyaar li may wax ni ma Cheikh Seydi Aboubacar pare na ci ziyaaram. mooy buy wax Cheikh Al Hadj Malick ba ci yàgg dana insha allahu taala. nee na mu xam ne pare na ak baayam. la ilaha illallah. incha allahu taala kay koo waxulal doog ko wax. déedéet waxtaan ji waxtaan ji dund fa mbay. coo ah, da koy wax nañu ñaan Habib nu fa mu nekk insha allahu taala tey Serigne Babacar Sy moom Cheikh mm. Seydi Aboubacar hmm. suñ borom nag daf ko may loo xamante ni li muy bari bari xam-xam wilaayam moo nëbb xam-xamam mm-hmm. ñu bari dañu defe ni sëñ Babacar mm-hmm. moom Cheikh rek la way moo tax ko dégg mooy waxtaan rek bu ñëwee rek li muy njëkk a wax mooy sëñ Babacar cëram mooy Cheikhu Tidiane waaw sëñ Babacar daa doon rasulilaay sallallahu alayhi wa kon kay ñëpp la am seen i cër mm-hmm. bi maam Cheikh Al Hadji nettalee ci yonent bi ci isra wal mm-hmm. miraajam sallallahu alayhi ju rëy yooyu mm-hmm. werante am ci yaay Aïcha nee na yonent bi day képp ku wax ne gis na yàlla tooñ nga ko mm-hmm. waa ndax dégg-déggam la mm-hmm. Abbas ni yonent bi de gis na yàlla te ku ko wax tooñoo ko ndax daa gis yàlla waaye peegul yàlla sëñ kër ñëw bëgg a tontu wax jooju ne dura jamaa dura jamin tibaqin lahu wa yaxruju ila afaqi arahu rabbul arsi la ilaha illallah xam nga gis-gis baatu raa bi firi gis mhm. ci alquran boo déggee raa muy firi gis léeg-léeg mu bàyyi gis gi di firi leneen waaw moom raa waaw am na raa boo xamante ni xam nga lu muy firi mm. tëdd gént Mm-hmm. waaw. am raa boo xamante ne xam nga lu muy firi. déedéet. tafakkur noo ko defee baax na. Mm. am raa boo xamante ne xam nga lu muy firi. njort. am raa firi yaqiin. am raa boo xamante ne xam nga lu muy firi. ru'yatul ayn xanaa ma détaillé. Mm-hmm. comme dama doon engrais rek xoola ya bunayya inni fi fil manaami kooku ru'yatul manaam la gént mooy gént ga mm-hmm. innahum yarawnahu baida mooy njort ñoom dañu njort ne lu la wa naraahu mu wér nu peng ñun yàlla ne xaribun mu ngi nii kon njort ak yaqin a ngoog muy ñett walla déet mhm. beneen bi mooy fan fanzur maza tara waaye noo ko defee baax na mhm. tafakkur ja xam nga ñeenteel bi mooy ba déedéet inni ara ma la tarawna mooy ru'yatul ayn mhm. sëñ Babacar nag ni bu leen ci dara jeexal mm. moom yonent bi gis na yàlla sallallahu alayhi wa sallam waaye li ñuy wax al idrakul bashariya defu ko mooy mu peeg lépp yàlla ndax lu waral looy mooy fa awxaa ila abdihi maa bu ko kenn tënk lahu wa yaxruji ila afaaqi hmm. arahu rabbul arsi hmm. maa yardaahu waxuma mu gis yàlla waaye yàlla da ko gis ba pare mu gërëm ko allahu kada min al anwaari maa yaxshaahu yemul ci yàlla gërëm ko ba pare waaye leer yemul nëbboon moom yàlla di ko xañ yonent yëpp mu ne ko mureet yonent bi gis ko sallallahu alayhi wa sallam kon kii wax mus na kii wax mus na mu jógee ci yonent bi comme donn na Cheikhu Tidiane radiyallahu taala anhu ak i mbóotam hmm. mu mel ni rek dafa ñaan yàlla leen laay ñaan hmm. mooy la Alioune Tamasini ñaanoon hmm. Seydi Alioune Tamasini dafa ñaanoon yàlla ni ko yàlla maa ngi lay ñaan de yàlla naa nekk jaamu Cheikhu Tidiane bi Mawlaana Cheikh Tidiane génne àdduna radiyallahu taala fekk Cheikh Ahmed Tidiane waxoon na ko su ma génnee àdduna dajale sama njaboot nga delloo leen ca Saxara ba ca Algérie. Mm-hmm. mooy dajale njabootu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane gi. bi mu leen di dajale rek benn sëtu Cheikh Tidiane ni ko bàyyi ñu yow suñu jaamu maam nga. rek Seydi Alin Tamasini yooku ba dóor loxoñ ci suuf ne alhamdulilahi yàlla maa ngi lay sant bi sëtu Cheikh Tidiane bi xamee ni man jaamu maamam la allahu akbar sëñ ni wax jooju lay ñaan yàlla. man waxuma cër yi nekk ci cheikh ndax yàlla jox na ma ko ba pare xam nga lu may ñaan yàlla mooy fa anal mu tayyamu in arafta kafaani cheikh cheikh al xalifa yow cheikh sid ahmad tidiane man sëñ babacar sas njaam laa bëgg a doon soo ko xamee ci man jaratul may wuti leneen doy na sëkk xam nga lu tax يعلم إلا أنت من عاد عسى عبيد daam daal a ngi nii yow Cheikh Sidi Ahmad Tidiane bu agsi sa buntu di fëgg hmm. mais sama destination kenn xamu ko ku dul yow sama destination kenn xamu ko illa anta yow rek yaa xam man Babacar ban destination laa jëm Cheikh Sidi Ahmad Tidiane moomu dafa rang Cheikh Seydi Aboubacar garaatam yi am yépp attention ñu ñëw na fi sax pour takkal ko garaat waaye lii def di cëram. dëgg te nit nag boo ko soppee léeg-léeg dafa jeel nga xam kan noonu kan la. dëgg la bi Cheikh Al Hadji Malick génne àdduna wax naa la sànq ni la képp ku donn Cheikh Sidi Ahmed Tidiane lépp moo lay wëlbati ko nangul. bi Maulana Cheikhul Hadji Malick génne àdduna dafa toog mag ñépp wër ko. mu ne tekk ak yarga ga mhm. nit ku yaru la woon mm. mag mu dal la woon mhm. mu ne tekk ak yar mag ñi di wax ba ci yàgg mu ne si géet daan ngeen baal ma de dama doon jaalanteet njabootu Seydi El Hadji Malick gidul nit mm. tañ bokk ci Maodo la ilaha illallah allahu akbar tax Seydi Abou Bakar Mansour toggee ci Tiwaawan wax li mu wax ci Tiwaawan ak tiwaawoon la mu yàggoo loolu ku nekk bëgg ko jàppe lu ne waxu ko pour karaama de wala ñu gëm ko de moom Cheikh Seydi Aboubacar waxul pour ñu gëm ko déedéet dafay sëbe nit ñuy ñëw tiwaawoon te xamuñu luy tiwaawoon alxalifa am na gudd fan hmm. oh, yàlla fi yàgg te wér amiin yaa rabbal aalamiin ma ni Cheikh Seydi Aboubacar laa wax Mansour yàlla na yàlla guddal fanam alxalifa ma ni waxul ñu ci moom li mu wax ci Tiwaawan ne am na ñoo xamante ni ñu ngi suñu biir nit ñi bëgg ko rëyal fekk na moom danger bi nekk ci biir Tiwaawan Pape Alxaaji Maxtaar Diop danaan wax ni mm. Tiwaawan dafa am ay feu rouge léeg-léeg nit burgi burle ko mu yàqoom àdduna ak alaaxira sëñ Babacar Mansour ñëw ci jamono pour dimbaleek nit ñi bëgg leen a leeral loolu nit ñi bëgg ko yóbbu fu ne allahu akbar mm-hmm. mu ni dama jaal jaalanteet njabootu Alaaji Malick gi nga xam ne ñoo dul nit Cheikh Seydi Hadji Malick njabootu Seydi Hadji Malick gi dul nit waaw ko wax la Sëñ Babacar Si moo ko wax pap hmm. Sëñ Babacar cër li àgg na ëpp na lool suñu maam alxaaji Amadou Wadd Mbuur bàyyi muallim suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Wadd Cheikh Ahmad Tidiane Wadd mos dajar baax lool ta bari xam-xam sëriñ boobu amiin yaa rabbi dafa dégg Cheikh Al Hadji Malick génn a àdduna xam nga lu mu daan wax mm. fii ba ñaggi tiwaan maa raw waa tiwaan nag raw leen yombul moom mais ñag yi lay wax ñag yi ñag yàlla yem duggul biir tiwaan <laughs> wax na lu leer ndax tiwaan moom boo xasee ba dugg loo indi ñu wecc la mm-hmm. danaan wax fii ba ñaggi tiwaan maa raw bi Cheikh Al Hadj Malick génne àdduna góor gi Abdou Karim moo ma ko nettali. man nag bëgguma di nettali loo xamante ni fekkewu ma ko. ndax fekkewu ma ko waaye ki ko fekkee ma nettali. nee na mu bind lettre am ba mu àgg daan ne bu fekkee ni Serigne Babacar Sy day li ñuy wax ci moom dëgg la. moo doon Cheikhu Tidiane doon Rasulullaay doon Cheikh Seydou Hadji Malick sama lettre bii man Amadou Wade damaa bëgg mu jot ko di xaw ci géeju mbuur gi rek sànni ko ne Babacar Sy jotal sama lettre. sànni ko ci géej gi ci géej gi góor gi Abdou Karim moo ma nettali mhm. Pape dama dama naroon a gàdd kele bi sax ndax <laughs> Sénégal dafa doy waar kele boobu góor gi Abdou Karim wax na ci suñu maam Alxaaji Basiru Ñang wax na ci góor gi amatu Sëy wax na ci <laughs> wax nga mag ña de mag ñu bari dem naa ci ñoom ñu nettali ma moo tax waxuma pour par déedéet wax nga mag pour ay joxe garaat doomu Alaaji Maalik rek dooy na galaat garaat mhm. loolu rek doy na garaat mm-hmm. góor gi Abdou Karim nee na li yéeme mooy bi mu sànnee jën euh, lettre bi xanaa da ndox mi bu ko fëlee daa war a génn mm-hmm. nee na lettre bi di nee na jën bi ko wan li ci gën a yéeme mooy jàppewuñ ko mbuur ñangal lañ ko jàppe góor gi Abdou Karim nee na soxna si ko jënd si Tiwaawoon mi ngi tudd soxna sëy na bu Juuf mu jënde ko ca ñaŋal dikk ba kër góor gi aali taxa ku dëkk tiwaan xam nga ko ca quartier commercial nee na mu lal fa jën bi di ko jaay sëñ Babacar comme moom suñu borom daf ko mayoon kasfu bu rëy radiyallahu taala yëg na ni jën baa ngi tiwaawoon mu woo góor gi kurdu yi gay kurdu Abdou Karim a may nettal de ni ko demal ci soxna Astou Kan nga wax ko ni ko am na soxna suy jaay jën ci buntu kër Ali Taxa mi ngi sol voile bu xonq cey Babacar nee ko na jënd jën bi ci lu ko jaayee te am naa ci yóbbante waxuñu pour ay karaamat yu rëy de aywa aywa waaw soxna Astou jënd jën bi di ko hmm. butti yem ci lettre bi góor gi hmm. Abdou Karim nee na ma bi ko seexul xalifa jotee moom la woo ne ko àggal mbuur nga wax góor gi Amadou Wade jot naa sama yóbbante allahu akbar lii may nettali nii suñu baay bu baax ñuy wax góor gi alxaaji saalih ndiir mi ngi may dégg mi ngi dund nee na ma bi muy am ci saalu Serigne Babacar maa ngi toog alxaaji saalih ndiir baay xaaji saalih doomam alxaaji euh, maxtaar ndiir ñoo nekkandoon ci Égypte di jàng daaw daaw bu yoof imaamu yoof bu yoof ndëngaañ tabarakallahu jàngal na ma xaaji bay nee na bis góor gi jotee lettre bi ni ko demal nga wax góor gi Amadou Wade jot naa sama yóbbante nee na góor gi Abdou Karim nee na ma ñëw fekk ko mbuur maa ngi ko fekk mu tëdd ci piliyaan ma ne ko Serigne Babacar Sy moo ma yónnee mu ne ma ban ma ne ko bu Seydi Hadji Malick nee na mu wàcce tànk yi toog la ni ma lu wax ma ne ko nee na jot na yóbbanteem mu ne ko doom wool ma sama chauffeur doo ba nee na booba deux chevaux moo xew nee na amoon na kër gasab amoon na kër Popenguine nee na chauffeur bi bi mu dawee ba tollu Sinja mu nara a croiser dugg Popenguine nee na mu téye ci mbaggam ni ko maa maqsadi bi Popenguine kalla wala gasabin walakin tiwaawoonu xaqan maqsadul ilmi wal adab allahu la ilaha illa allah tey gasab du sama du sama dalwaay Popenguine du sama dalwaay fa xam-xam ak teggin nekk muy doomi Seydi Hadji Malick ji bi ne wax Babacar Si fa la jëm <laughs> borom bu ne yi ay cëram la barakallahu Habib waxtu waa ngay dem nag waaw léegi hmm. léegi hmm. tabaarakallah alaaj Paap xam nga góor gi xajul ci weer déedéet déedéet xajul waxtu déedéet hmm. dañu bëgg ñëppay bëgg. waaye bëgg bëgg bëgg a rek mosantu rek. Ah. ci njabootu Seydi El Hadji Malick. mos ci leer gi mos ci leer gi. wallaahi. Mm. Baye Mamadou Diop fii ci Cité Millionnaire. Mm-hmm. ma nettali. nee na magam bu mbokkal ndey ak baay jabar ji daa am doom amul lu mu ngénte. Mm. mu ne naa dem wax ko Serigne Babacar. radiyallahu anhu. nee na mu yéeg ci saxaar si wàcc Tiwaawoon. Mm-hmm. ñëw ci sëriñ Babacar ne ko sama soxnaa yeewi ko jamono jàpp ma. Mm-hmm. may sàkku si ndimbal. Serigne Babacar ne ko baax na. Jóob def fa ñaari fan ngénte li des ñaari fan nee na mu ñëw tàggu sëriñ Babacar mu ne ko nuyul ma waa Ndakaaru Jóob ñëw ba ci bunt bi ne man de dama yaakaar ne sëriñ bi daa fàtte li ma ko wax <laughs> Jóob mel ni kuy wëlbatiku waa taxaw taxaw taxaw hmm. Serigne Babacar si gi ne ko Jóob lépp dana baax wallaahi Jóob dagg bi yéeg ci saxaar si ah. wàcc ci gaaru korobaat bi dox fukki mètre for benn kalpe ubbi kalpe bi ci boobu jamono fekk fa ñaar fukki junni ak photo Serigne Babacar si radiyallahu taala waaye Mamadou Jóob nee na ma Jóob boolewu ci wax dara la jàdd jënd xar jàdd marché dugg ndugg xotti xottil soxnaam jóobare teg ci bi yóbbu këram jóob ngénte ba noppi doo ko dem Tiwaawan ne maa ngay dem Tiwaawan nettali ko Serigne Babacar Diop wax dëgg Baye Mamadou Diop na ma eh? bi mu àggee Tiwaawan yéeg dugg ji dugg ci saal bi eh? balaa muy nuyoo daa fel rido bi sëriñ Babacar siggi ak teega teega tekk ga borom bu ah. nekk are ba bu toogee du gestu ah. ne tekk ak taar ba sëriñ Babacar siggi ne ko jóob mu ne ko si mu ne ku la abal kalpeem nga ngénte ba noppi war koo dellu kalpeem ci yoon kon jëw jëwoo nga neel tasuloo yaakaaru kenn ku la gëm moom sëriñ Babacar si Babacar maa ngi ñëw léegi nag ah, si bagee dem jawaar moom yaa ngi loolu mu def noonu doomu roqee njaay jooju fa la ñuy taxawandi waaw ma loolu mu def noonu waaw góor gi Abdou Karim nee na def na ko hmm. nee na daa toog jàkkaarloo moom di wax ci ñoom naan Babacar si lu tax weñ du tag ci kawam waaw nen ci xel mi la koy wax nee na mu jékki-jékki ni siggeet ne ko Abdou Karim ah. nee na mu ko labbayka mu ne ko ku doon rasulillahi te jool màkka weñ mu tatak ci kawam weñ du tak ci kawam góor gaa ngoog wax du doon jikkoom yaa